tey ñi ngi teew fi devant la commune de Tivaouane Peulh Niague pour amal fi suñu sitting liko waral nak moy je pense que déjà l'opinion sénégalaise nek na au courant ndax depuis 2017 ñi ngi daw ci lo xamni suñu akal ak suñu yellef état du Sénégal jëlé won ñu fi ñu nekk ne tali fay jaar joxone ñu benn site de recasement bu 20 hectares ba ñu liggéey ko ba mu nopi biñ ko liggéey ba mu nopi di xaar li nga xamni mom moy mooy bi tax victime bu nek mëna a jotaat sa àq ak sa yellef état bi ci boppam dellu siwaat ne lam ñu joxoon ba ñu liggéey ko ba mu noppi jëlaat na ko suñu loxo joxaat na ko loxo si CIPRES te depuis lors bi mu ko defee léegi ñëwaat fi defaat ay yeneen démolition yu bees barki Dembo Ndiaye tojaat fi ay kër jàmbur créé waat yeneen victimes yu bees te victimes yooyu yàgg yi sax état wutagul solution ci ñoom loolu nag tey lañu ñu dellu si di xamal état ni bu ñu toogee bopp ba léegi defuñu dara waxuñu parce que tamit lu ñu mën am wërgu yaram doomu adama mo ëpp solo lepp te comme dañu nekk ci benn contexte pandémique motax bëggu bëgguñu fee nekk di introduire ay demande d'autorisation de manifestation wala di organiser ay grève de la faim wala di def leneen ak leneen motax tay ñu xol moyen bi nga xamni war nañ ko mëna def avec le peu de victimes yi nga xamni ne mën nañ leen convoquer ci parce que tay bi ñi ñëw woowuñu victimes yëpp dañoo woo peu de victimes yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk au niveau de Tiaounpel gën a jege ñu woo leen parce que pour éviter euh, beaucoup de rassemblement moo tax ñu def loolu ñi nga xamalaat nag état du Sénégal ka fa ñu nekkoon ñun collectif des victimes de démolition de Tiaounpel démb ak barki démb tey la ñu fa gën a nekk tey la ñu gën a mën a am taxawaay bi nga xam ne tey moo ñuy may ñu jot suñu alal moo ñuy may ñu jot suñu gain parce que tey état bi mu nanguwul woon ni collectif bi ñii victimes yii am nañ droit du yëkkati 20 hectares jox leen te keuyit bi nga xamni mo mo len joxone 20 vingt hectares bi fi ñu taxaw ni tay di wax ak yéen fi la maire taxawoon fi la ko gouverneur joxe keuyit bi fi la maire taxaw siiwal ko yëgal ko victime yep ba ñu jox len 20 hectares ba ñu liggey ko nak mu nekkon ben site bo xamni dafa accidenté ñu liggey ko liggey ko aménager ko ba aménagement bi pare ba duggal li nga xamni mom moy voie d'accès bi voie d'accès bo xamni presque def na 4 km 5 ñu duggal ko ba ci bir site bi bay xaar li nga xamni mom moy avenant bi ñuy may victime bu nekk mën a jot sa lopin de terre pour tabax ci sa kër suturlawu ci ak sa njaboot état ñëwaat na jëlaat na loolu delloowaat na ko si presse pour mu defaat ko ay village de très grande standing jaay ko ay sénégalais yi nga xam ni ils sont beaucoup plus aisés loolu nag ñun dañ ko dul nangu tey dañ ko dul nangu suba. dinañ reprendre suñu combat nag adopté ko ak situation actuelle bi nga xam ni moom moo nekk Sénégal muy contexte pandémique bi mais suñu combat tey lañ ko gën a mën a taxawal te tey lañ gën mën a pare pour jàkkaarloog état du Sénégal. suñu déplacement yombut xam ngeen ko jël oto jël paas dem ak dikk sonn ba bugg a dee pour si fii alhamdulilah rabbil alamin man ba ma agsee kon dinaa jël parole wax leen ne sonn nan jox leen sun yëf set ba léegi ñeenti at ci tey ñu am kër ak nañu ko amee ñoo ko xam duñ toog di leen naan ni leen nii lañ def ba am ko ñu toj ko tasaare ko néew ji doole yi sonn nan xamatuñ lu ñuy def duñ découragé nag ndax ay senegale lañ waaye mer nan jooy rek a nu dese te amuñu fu ñu jooyee yaa ngi ñuy gis bu fekkee yaa ngi ñuy gis rek wuyunu bu fekkee yaa ngi ñuy gis wuyunu ëpp nañu doole ñu ngi ñuy jaay doole te nun bëggunu lii jox leen sunu kër yi nu dëkk seeg sunu njaboot yi luwaas bi metti na